Thank you man tey dafa am lu ma jaaxal quoi docteur si kër gi. Mm. man tey maman dafa dugg si kër gi yor mbuusam ñam bu neex boo xalaat mu ngi ci biir ay jus affaire yu yu neex rek la ci def laa la wax ba pare maman tey dafa maa romb nuyu sax defuma ko lijjantiwu ma sax man damaa xamul maman xaalis boobu fan la ko war a man de man ay waxum maman man bokk gi ma bokk ak moom doo nga ma jaaxal waaye su ma ko mënoon bàyyi dama koy bàyyi définitivement. mama bu mu ci won ay ginar jaar ak mom fi sama yoon bu ci nek man dama sonu ci mama man de li ngeen di wax dama ko waxut jafeel da war nga dem jeli ji kadja wala nga woo telephone mu ñew parce que bam waxé né ne day yóbbul yaayam ko ko ba légui mu tëdd tic ci né du ñew lool mom bayiw ko fa. do nga la japp du bi ngay liggéey ci kër gi nga tax nga bëgg euh, euh, kadja ñew du tay question tayel de ku ne xam na né wër ko dafa metti té liggéey bi fay bari kenn nit du man lool war nga ko jëli. man da li ngeen wax yépp metti wala xam nga metti xam nga waa kër gi moom xam nañ ni ma mel ak mama mama lu suba ba ma ma mel dafa dikkale carrément. man bi nekk ci mama laa xamul fa la dimbali sama der bi ngeen jàpp rek indil mama ay waay lii lan la fondation bi sama papa ko fondation ne ay waay dimbali leen ma lii lan la. surtout ma yow ya dëkkandoo sonal nga ma de fat nga ma topé nga ma mboro yow am ma maa indil ma maa te sax wax ji xam nga lan la ñeur bi dañ koy xaar benn waaw te boo ko rek am na ñu dul arrangé waaw ñeur bi lañuy ñuy dem te sama buntu neex da ngeen tok di waxtaan lu ne ngeen dugg ci dama bëgg ngeen jël seen basal ramdo ba nee. ba lay buñu ñu baree yow lay ma def. man ay donto care ma rek ci xale dama am xaaliss nek sama néeg bi lu nek ma nga fa nak bu len ma gis ma tudd ni rek yaakaar ne awma dara lepp mu ngi fi la may fekk sama biir néeg bi yo yo loolu mo tax ba do la rek yo yo loolu mo tax amoo dara ci yërmande yow yow moom xam nga dama wax ak yow da nga am tooq doof mo tax dama wax ak yow sa jabar la ti waye bu dul woon loolu bii moom do ko def te bu ma kenn déranger nag te sen basan bi bëgg na ngeen diri ko ba ne bu ma kenn déranger bo man ki lan la mo wara yabe man ki lan la mo wara yabe man

wallaay araam gisu mooy géewu ma tàngu yooyu di bu ñëwee tey dinañ dimbali donc mu ngi fay lépp jàpp waaw man de maa ngi village 193 léegi laa agsi nii sax ñoom de dañ maa wax jotuñu waaw waaw soo tudd maman maman maman kaay kaay waa kaay waaye yéen na ngeen fexe nag ba décision bi mu jëloon yow dëkkandoo yow dëkkandoo yow lan la yow mënoo maa dimbali. saa yi ma nekkee sama néeg di enjoy di di dund daal life nga bëgg ma koo yàqal. yow sa génn xañ na si ah. lan laa def tey moom da ngay génn. lan laa def tey moom da ngay génn. waaw kay toog ba pare. ñu lay génn eh, nga xeex. toog ba pare waaw kay garaawul. di nekk bi ma foog na. yow yaa ngi may a man lii maa fëgg nii. waaw yaay maman. waaw maay maman tey. mais dafa am sama waa joo xam ne dama koo contacter léegi maanaam ci wàllu ndimbal la ñuy jox mais ba ñëwee village 193 dana ma kat sa tur la ko def. sëñ bi nga baal ma heure bi du heure kii wax dangay bàyyi dañoo nekk si weeru koor te ñuy sànq ba tey am maman indil ma. maa bëggoon nga bàyyi ba ñu ndogu ba pare nga ñëw yeggali ay doom doo yooyu yëpp doo yeggali. ndogu ba pare de. kii du ñëw fi jógee fi mu ñëw di wax bu fekkee. mu lay ndogu de jàngoo français mu wax la ko ci olof. est-ce que yaa may dégg baax dama ni la li wàllum ndimbal la te ndimbal bi kër yépp lañ koy jox ñi nga xam ni seen loxo jotul seen ginnaaw may laaj ñii ana seen wàll. nee nga ndimbal na ca fekk loxol borom waaye sama loxo ba da nekk ca biir. salaamaaleykum. naka def. ah yow ndaw si koor gi yaa teel naa jàpp de xanaa am ndaween nga. gis nga de koor gi daal métti de. ah mhm. massa. waaw ah, maanaam xam ñaata mbindeef mooy yow ci biir gi. ah, ah, hmm. ah dëkk bu naqari bii nga naan maa ñaata nit ñoo yeewoo ci kër. maanaam dana nekkoon ay ndaw yor association bu jógee bu nekk Arab Saoudi amoon ay ndimbal nag yu ñu indi woon ci gox bi léegi nag ñu ne nañ fi jaar ba laaj leen ñaata nit mooy yeewu ci kër gi. maanaam ndimbali moom nu muy demee. Ah, maanaam ay dons yu ñuy joxe la bopp bu nekk euh, dina am ñeenti junni waaw ah, bu ñu xamee ñaata nit ñooy yeewu ci kër ah, ñeenti junni loolu kañ boo teeloon commencé foofu kañ da ngay toog kay hmm. toog. sëñ bi ba indaale nga bëgg ak fooy. waaw waaw waaw. <laughs> xam naa am ndawen nga de. <laughs> nooy daal ndaween nga ñemewu ko waaw bisimilah. dama bëgg xam ñaata ñooy ñoo ne ci kër gi. néeg bii de. Ah. am na ñeenti nit yu fi nekk. Mhm. néeg bii suñuy dëkkandoo ñoo fi nekk. Mhm. ñoom far yi dañoo tuxu ah. waaye xam naa fan yi néew dinañ ñëwaat. Mhm. fii ñaari nit fii ñetti nit. fee tamit ñaari nit. waaye fee ne daa am kuñ ko jox. te suba la war a ñëw incha ah, fii gis ma fii nekk. waaye mala yaa nga fa. ñoom doo xam rek bokk ci kii bi ndimbal bi. parce que bu bu limba bi doomu aadama yi la noonu mbindeef yi. Ah. waaw ak sa dëkkandoo bi nga naan mi ngi fi te mi ngi ñëw te ñëwagul. foofu ah. moom mënu ci maanaam ñi fi nga xam ne ñooy yeewoo ci kër gi rek maanaam nee nga ñeent. Ah. limal ma ñett ak yeneen ñaar waaw léegi yaakaar naa. ñeent ñu ma njëkk a wax. enveloppe ngi ni yeneen ñaar ñaari ngi ni ak ñaar yi. ak ñett yi nga ma waxoon. waaw léegi li ci des nag mën na ko waaye beneen yoon. <laughs> waaw maanaam léegi nag. Euh, mën nga ñu signal fii rek sama dëkkandoo bi ne fi ñetti weer a ngi nii fayut luwaas ma jox xaw ko cee jox rek yow moomu toog man nag maa jox dëkkandoo jox naa si fan kañ nga ma jox ne man nag ba ma ba ma la koy jox nee nga ma bu ko kenn yëg yow nag ma yow mama yow yow mama lan nga ma yebee mama mama fan yow mama yow nag ma mos a jox dara yow si sa àdduna yow mama yow kañ nga nekk borom kër gi ba xaalis di dugg ci kër gi nga di ko jël di fato moom sa biir néeg loolu yëpp mën nañu ko régler léegi xam na ngay def da ngay jug nànk au moins voilà aisément ñu dem brigade bu ñëwee dinañ régler affaire voilà dem leen demal bàyyi